ngay député te ku wax député ne loi wax yoon ak yooyu taay ñu en tout cas nemmeeku ay jëf yoo xam ne dafa rafetul ci relation entre citoyen bi ak ñi nga xam ne ñoo ko war a aar ba keroog rek benn commissaire dugg na ci pharmacie def foo jëf joo xam ne quand même rafet yow en tant que député en tant que kenn ko xam ne da ngay waxal askan wi lan mooy sa point de vue ci loolu. mais euh, cest système bi ci boppam mooy dunde noonu euh, <laughs> xam naa ne li nga mujj ne waaw mais kon peut-être <laughs> loolu soxla sax xanaa ñuy continuer inter système bi. mooy mooy mooy doxe noonu mhm. maanaam euh, xam nga nee naa la administration beek ni muy doxe mhm. du nit ñi jàpp ne du seen yëf d'accord ku ci nekk euh, da ngay lijjanti rek euh, commissaire bi su fekkonte ne wóor na ko ne loolu su ko defee ah la ko cay fekk xëy na sax place am moom waxuma place sax jële ko fa mais xëy na leneen man na ko caa fekk kon du ko def mhm. def ñaar sama page Facebook mane kilifa ci force armée ak paramilitaire bu ñu lay euh, installé bu ñu lay bu lay jox lenge yi mhm. dañ naan Euh, troupe bi maanaam ma maanaam gone yi yor yëf yi mhm. dañ leen di wax na ngeen euh, euh, Cheikh Tidiane mi mooy seen kilifa ginnaaw bis ginnaaw si tey mhm. na ngeen ko déggal ci lépp lu mu leen sant ci luy doxal service bi te ak luy maanaam jëm ci respecter maanaam loi bi maanaam li loi tëral ñu nga ñu aar ko ngeen aar ko lool loolu la leen di wax mhm. waa léegi bu fekkente ne euh, loolu ma ma yaruñu ci gone yi ñu ngi leen yar ci lu ñu la wax rek na ko def boo attaqué pharmacie wu jàmbur nga ñëw dugg ca biir jàpp ña fa ka fa ne ña fa ne eh, def fa ay yàqu-yàqu kooku problème la. Mhm. Hmm? Euh, dégg naa ne sax dañ ko affecté man d'accord naa ci ñu def enquête hein man man du nu réseaux sociaux yi eh, wax wax wax rek ñu daal di def nit non non da ngay seet. li xew ca dëgg-dëgg. ah oui parce que réseaux sociaux yi ñu ngi def très attention barki démb rek maa ngi jot benn euh, euh, audio. non non benn vidéo mu am benn euh, naar mauritanien kilifa la fa xam naa ne di wax ci diggante réew yi nit ñu ñuul yi ak Mauritanie di wax ci diggante arab yi ak Mauritanie. wax fa wax boo xam ne man ànd naa ci waaw mais ñu def ci suuf ne mooy président bi fi nekk tey moo doon wax loolu laata muy doon président am na ku ma yónnee ci Mauritanie benn audio ne ma attention naar boobu kat bokkul ak. ki falu léegi nii président bi ki fi nekk léegi président. Hmm. te ma defoon naa ne mooma. kon te ñi ko jot bari nañu. Hmm. ñi jàpp ne loolu la bari nañu te fekk nekkut. na ñuy def très attention ci réseaux sociaux yi donc man pour une enquête indépendante parce que waa ji commissaire de police la mënuñu ne kon na police def enquête mhm. non nañu def enquête indépendante mhm. su fekkente ne euh, enquête bi dafa wane ne commissaire bi moo tooñ vraiment ñu def ko teg ko li ci war ci lii ñu li ñu gis nag li ñu teg bët moom. Mhm. ah pour commissaire bi <laughs> am dëgg moom dina dina jafe lool parce que loolu dañ koo gis lu ñu teg bët la. waaw yëg nga tamit benn policier bu def njombe Thiès démb. alors ak yeneen ak yeneen mais du police rek du du du du fu la fu ne fu ne boo jëlee du nañu am na benn waay bu doon jaay nationalité un million. Mhm. voilà yow boo bëggee doon sénégalais. làqar ci un million ñëw jox ma ma daal lay dafa fexe ba nga doon euh, sénégalais te ab décret lay utiliser décret mooy loo xam ne kayit go président de la république rek ko mën a signé bërki démb kii am déet mm-hmm. bon donc te loolu mooy mooy li xew Sénégal daal lépp la ñu war a xoolaat mooy mooy liy dox mm-hmm. leneen lu jub lu jub war a dox dañu naan lii bokk ci système bi bëgg ko soo ko bëggee sax doo doo ko man cest yow boo bëggee jubal fu ne dinga fa gis ay ay ay gàllankoor fu ne fu ne fu ne fu ne fu ne di nga fa gis gàllankoor parce que système bi eh, moo moo moo mooy doxe noonu hmm. affaire bi dafa xóot daal